asalaamaaleykum suma gars yi j'espère que vous allez bien opposition ba yëngu na de Amadou Ba nee na na état bi jóg taxaw jàppale ndaw ñi ndax ñàkk yaakaara tax ñu jël gaalu looco yi di dem Bougane gay Dany dal ne téeméeri fan ñu xàcc te dóoruñ téeméeri jéego la ñu euh, def ca ndar téeméeri ndaw deeti géej gi téeméeri euh, jeexi jaaxa am ci diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar fay moom Bougane gay Dany toftal ci ne jàpp askanu lëmm di leen xoqatal ci ay lempo loolu la ñu ne fu mu jëm gendarmerie nationale supparñe nañu ay autorités yu bari ca biir gendarmerie ba bari na ay changement réew mi ngi xaar mbir yi Didier Badji Fulbert Sambou fan la wànnante di mujj ki gëtam nit ñee bëgg a xam lu ca leer mbënd mi ba tey euh, jëmut kanam foofa nga xam ne moo di kawlax ci li koy jagal waaw kon autorités yi ñoo ngi leen xay fay xaar ca ca ca ca dëkk ba waaye président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ne lépp lu war état bi daañ ci def seen kéemtalaay kàttan wallaay wallaay euh, docteur honoris causa moom mooy euh, raaye gi ñu takkal Youssou Mari Sène ngir mu gën a ñoŋal culture Sénégal jëmale ko ca kanam Nduro Wali Mbergane euh, na mu tuddati caisse de sécurité sociale dafa am jenn waay ju ñu fa jàppee un milliard huit cent millions yu mu détourné ab aawoo ma ko boole ndax waaja daa takk ñaareel foofa it rapport génne na ni waa APR xaalis ba doon campagne kon ca kees ga lañ ko génne waaw waaw musiba naaru laay la kay ana ana ana ana kon euh, doomi jàngoro ji di Sida lëmbe Bambey ak Mbakke ndaw ñu bari mu ngi leen di lor taba baa it mu ngi def fitna ak jéey ci jigéen ñi Saly Mbour gi benn pas français bu am cinquante six ans moo dugg ca Auchan ba di sàcc ay potiton ñu jàpp ko paa baa nga prison bonne journée